Euh, salaamaaleykum mbokk yi salaamaaleykum askanu Dak waa Médina yéen ñuy suivre ci sunu site tay dama am invité mu nek invité bo xamne c'est un jeune jeune bo xamne dafa soxla ñu promouvoir ko parce que jambar la buy liggéey buy liggéey surtout assane bi duma len ko présenter mom moy présenter bopom sëñ bi nga def. jërëjëf Lamine maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax. tour bi naka la déjà comme ça ah, gaay xam la. Wa Youssou Sama nek euh, dëkk Medina, juddoo fa yaro fa magge fa liggéeyee fa def euh, def fa lépp uh-huh. donc euh, maa ngi. suñ la doon wax nga def une présentation succincte kan mooy Youssou Sam. lan ngay wax waaw su ma wax Youssou kan mooy Youssou Sam Youssou mën naa ne dafa nekk benn jeune boo xam Medina la juddoo. Uh-huh. Euh, jàngee Medina 2. Uh-huh. bon dem conservatoire. nekk nekk artisan aussi tamit de profession. bon yàlla dimbali ñu rampe ci lu bëri. ba tey ñu nekk chef d'entreprise, entreprise. aussi di liggéey nekk tam acteur politique. au niveau de la Medina, donc loolu lañ ci mën a wax mën nañ ci sax gën a sori mais ci tënk rek c'est un jeune boo xam ne daal Médina la defee léppam. donc un Médinois. un Médinois. Euh, sa mouvement bi lan nga lan ma ci mën a wax Suxali. waaw xam nga Suxali li ma ci mën a wax bëri na parce que Suxali benn mouvement la boo xam ni ba muy judd dafa juddoon dans le cadre de l'artisanat donc ñu am lu bëri loo xam ne def nañ ko ci secteur la donc ñu def ci bàyyi ci suñu waar lu bëree baree bëri. ba tey mën naa ni dem ba ci biir ci pa dëggu ci wàllu politique. Mhm. donc def ci lu baree bari tam ci wàllu politique donc Soxali bu ñu koy tudd bu ñu ko yóbboo ci côté secteur artisanal mën nañ ci wax lu bari parce que am nañ ci expérience def nañ ci lu bari bu ñu demee ci côté politique tam am nañ ci expérience parce que def nañ ci lu bari. donc Soxali dafa taxawee ñaari tànk. dafa taxawee ñaari tànk. ñu wax ci Soxali sur le plan artisanal. Mhm. lan ngeen ci mën a wax yan euh, réalisation ngeen def ci ci ci secteur boobu. waaw Soxali dans le cadre de li ñu ci def bëri na. Mhm.

ya ya énormément de de, de compagnie yo xamni ya y énormément de direction yo xamni ne ñooñu dañu wara intervenir secteur artisanal mais malheureusement ñun jafé jafé bi nga xamni mom la secteur bi di am moy souvent ñi nga xamni ñom lañ ko ngank wala ñom lañ ko jox pour ñu doxal ko duñu am expérience pour mën ko doxal motax ñun ci suñu taxaway bi nga xamni am nañ ko am ci expérience am liggéey nañ ci ben projet bu am solo bo xamni ben programme qui xamni japp nañ ni programme bobu moy levier bi meuna développer secteur artisanal. parce que tay ñak développement secteur artisanal mo indi jafé jafé yu bari mu am alors que le président de la République a mis des moyens qu'il faut ak les directions qu'il faut pour ñu mën doxal secteur bi mais malheureusement lolu amul. mais kon dafa mel ni on n'a pas mis les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. malheureusement lolu mooy jafé jafé c'est parce que ñing ko jox dañu xamul artisanat. ñing ko jox wala dañ ci dundul. ñi ko jox ñi ko jox ñi ko jox dañ ko xamul cest à boo bëggee dégg-dëgg ñi jox secteur bi ñu yore ko xamuñu ko te mënuñu ko yóbbu fenn xam nga li tax parce que tey boo xoolee tey jafe-jafe yi nga am secteur bi mi ngi koy am mm-hmm. est-ce que tey jaadu na fi addina bi toll nga ñëw ci secteur menuiserie nga gis benn menuisier boo xam dafay liggéey benn lal ak benn armoire pendant un mois ànd ci ak benn groupe d'apprentis xam nga loolu ça sonne marre à l'oreille ak fi jamono toll nga dem secteur cordonnerie nga fekk fa benn cordonnier buy liggéey sans paire daal ci pendant quinze jours avec ses apprentis est-ce loolu jaadu na alors que tey boo demee Chine mbaa nga dem Japon mbaa nga dem Turquie mbaa nga dem Maroc au moins di nga fekk ay artisans yoo xam ne da ngay ñëw fu mel ni Chine exemple ngay ñëw commandé fa lal ak armoire nga ñëw commandé ko tey suba nga ñëw taxaw ñu def ko ci ay paquet jox la ko nga commandé mille paires de chaussures ñu defaral la ko tënk jox la ko. mais c'est l'industrialisation l'industrialisation mais foofu nag la ñu war a dem te gars yi jëmuñu foofu. moo tax man ci liggéey naa ci benn programme bu am solo boo xam dama bëggoon ñu def mise en œuvre yi. Mm-hmm. mais malheureusement man def ci secteur artisanal. Mm-hmm. ak fi ma ci toll dépassé naa fu may taalal kenn loxo naan la kaa liggéey ku xamul sama gëdd joxuloo ma ko woo ma ne ma tey boo xoolee tey organisation bi mën naa dugg ci programme bi tuuti rek parce que mënuñu ci xuus ba mu sori mais programme bi man liggéey naa ko tey ñi ko ŋànk ñëpp buñ leen tegoon ci axe ñoom ñëpp kenn ku ne position bi nga taxaw nga taxaw fa uh-huh. ah, mais affaire bi dem na yoonam parce que exemple la maison des outils 3FPT mais kooku formation moo ko war mais formation bi ñu war a former les artisans mais nañ ko def fexé ba nga xamné artisan artisans yi fi ñu leen war a former dinañ leen fa former mooy fexe ba industrialisation boobu ñu am ci ay part de responsabilité yam dafay am taxawaay bu am solo. au niveau international la formation c'est un problème c'est un problème c'est même le plus grand problème. effectivement donc bu jógee ci formation boobu mais après maison des outils dafa war a intervenir. maison des outils moom moo war indi ay machines de type de de niveau 1. yoo xam ne dañ koy mettre en place pour que au moins ñu mën a booster affaire mën a jëm ci kanam mais la direction de l'artisanat dafa war a accompagner loolu mais malheureusement direction de l'artisanat y avait une directeur boo xam ni 27 ans de service mënul bouger sur place. 27 ans 27 ans depuis Abdou Diouf ba tey Matar Diakhaté mi ngi toog benn place nangul bouger mais ñu teg ko ci fan. te le président de la République da ko yëgul xaw ma dañ ko ko waxul je ne sais pas comment faire mais. bu ñu ci il est indéboulonnable. ah mais dafa yàgg foofu loolu kooku dafa war a dem yoonam ça fait très longtemps. est ce qu'il y' a pas un problème dans le secteur de l'artisanat mooy problème de coordination. parce que le secteur yi nga xam ne dañ ko def yëpp. Mhm. li ñuy wax état bi def na ko ci ci ci coordonnerie ci artisanat. Mhm. surtout ci domaine coordonnerie. Mhm. ba on ne sent pas. C'est bi nga ne mhm. un problème. parce que cocktail bi ñu ko mhm. de passage Pape euh, délégué général d'air. mangi une fois mu wax lu mel coronation. coordination am coordination bu amone est-ce que c'est pas un discours politique seulement non mais je sais que loolu amul parce que ñun dund nañ ko xam dama ne la amul mhm. gis nga tay maison des outils bu defone son rôle moi moi mu frère taxaw taxawaay bi mu wara taxawé taxawee indi les les machines qu'il faut. ben deux direction de l'artisanat bu defone son rôle mooy fexe accompagner compagnie yi nga xam yëpp ñoo wara japp ci secteur pour mu dem. ça va aller. Mhm. deux trois APDA bi nga xam mo wara la promotion de l'artisanat man dama jàpp directeur bi nek APDA tay xamul sax lan lañ ko dénk. parce que da fay jawalé promotion de l'artisanat ak lénen yu mo wara def té bokul mais ASAPEX bi docteur Malick Diop jiite mais kooku kan moko ko part de responsable secteur artisanal. ASAPEX lan moo war a nekk rôlam jël produit yi nga xam ne ñi ngi koy liggéey fii ci mi mu importé ko yóbbu ko bitim réew mais bala a so ñu maa gën a énervé rek ñu organiser benn foire États-Unis wala Dubaï ñu jël ñaar ni ñett nit non c'est pas ça gis nga système bi chinois yor ba nga xam ne tey foo dem ci àddina ba fekk lay boutique chinois fekk la ñu taxaw assise yu baax foofu la ñuy xaar ASAPEX foofu la ñuy xaar mais mais en fait su may déggee dafa mel ni yéen Euh, su def affaire du len ci associer non mais est-ce que c'est pas ça le problème aussi. c'est ça le vrai problème xam nga c'est ça le vrai problème ku melni man tay man xamna ni ñu bari dama len di déranger. man mhm. loolu je le sais parce que ba waxé ñu né non bu len ko déglu. parce que parce que dérange parce que. damay déranger damay déranger man parce que man damay wax li am et puis man damay wax deug bi ñu tek ko fi ñu ko wara tek té lolu loolu bëgguñu ko dégg. motax ñu ci bari ndeysaan bu togg ak kilifa gu mag sa daan ko non kooku bul ko déglu parce que comprendre mais, alors que mais un problème parce que secteur de l'anzana mhm. il y a tellement d'associations que mhm. les gens se perdent mais parce que tamit est-ce que ça aussi le problème waru mhm. secteur avant vers vers vers vers euh, la secteur la politique bi mel moy ku ne da nga am sañ-sañ ak droit bo xamni ni bu la neexee nga xey créer sa yefu bop loolu kenn mënu ko téré kenn mhm. mais xam nga lan mo am solo mhm. yow miñu ko jox nga koy doxal yow miñu ko jox nga koy doxal mais nga tek ko fi nga ko wara tek soko fa tegee rek affaire bi dina wara dem fi mu wara dem mais question bi ñu di pose moy pourquoi mhm. mu nek secteur ben secteur am multitude d'associations en fait lolu ñun ñi nga xam bokku ci dañuy poser question mané xana ñun yeen li ngeen di def ni du pour kese artisanat pour def promotion artisanat parce que su nekké lolu war ngeen mëna boole seen ay doole. Mhm. unir ko wax à l'unisson mhm. xam nga foofu lu tax man ma mën ci ma mën ci du ma ci du ma ci dinaa ci wax sax mais xam nga li tax du ma ci bëgg di sori trop. Mhm. parce que xam nga constitution Sénégal dafa am nu ñu ko moolee. mooy nit ki ni mu libéré xëy dem ubbi parti droit association donc loolu loolu kenn mënu ko tere nit mais xam nga fan la affaire bi nekk dëgg dëgg dëgg mooy il faut pas créer pour créer mais il faut créer pour mise en œuvre créer pour def dara xam nga tey boo ñëwee ci mouvement Suxali tey mais lu ne fàng la kenn du ko jeex parce que mouvement Suxali li mu def li mu def li mu def ci secteur bi li mu def ci secteur bi mouvement Soxali li mu taxaw ci secteur bi ak li mu ci def ak li mu ci xeex pour ñu jox artisanal gëddëm loolu ku ko doon wax tey fii ba suba doo fi jóg mais est-ce que am nga relation ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci beneen yenn association yi mhm. est-ce que yéen ngeen vous parlez bu ngeen di ngeen mhm. di ngeen wax mhm. seen biir est loolu am na xam nga xam nga malheureusement problème bi ñu am souvent mooy dama ci waxtaan ak association yu bëri yoo xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu artisanal yu bëree bëree bëree dama ci waxtaan ak ñoom mais problème bi ñu am

mais yow selon yow lan nga la ko comme je dis bouton bouton bouton bouton un cocktail comme tu dis mm-hmm. cocktail c'est fini et ce sera quelque chose de bénéfique bénéfique pour l'artisanat mm-hmm. xam nga xam nga programme programme programme la boo le de en globalité programme man dama jàpp ni képp ku fi bàyyi programme boobu doo développer secteur artisanal te waxuma la bii waxuma la bee mais globalité artisanale yëpp tënk naa ko ci programme boobu. mais est-ce que li programme bi dem nga vers les autorités pour le leur waaw mais xam nga la moo tax programme boobu ma téye ko pour man garder ko. waaw man dama yàgg ci secteur bi def ci lu bëree bare bëri ay jéego yu bëri. donc ñi nga xam ne tey ñoo fi nekk. yalla di président de jël ay responsabilité jox leen man tolluwuma foo xam ne tey damay dem ci kenn nan la kaay ma dimbali la xam fan laa toll tey ku xam sama cër xam sama gëdd xam li may peser ci réew mi boo ñëwee seet si ma waxtaan ak man ma jox ma jox la xam-xam bi ma am ànd ak yow programme bi ma am mais aussi maa ngi saluer li président de la République def parce que le président de la République na ni man fonk naa secteur artisanal mhm. ko fonk moo tax mu créé une ministère spécial jox ko sa jox ko c'est gulet loolu musul am

donc moom mi nga xam ne poste de responsabilité yooyu moom war a am ubbeeku mhm. xool ñi nga xam ne war na leen associé leen mu mais malheureusement mooy li may wax mhm. gis nga même mhm. bu leen parce que am na ñoo ne bugguñu bi da leen di déranger ce qu'on voulait moins, nañu ku fi ñew nañ la ndar petit ci ben point de la nous la fii moo xonq fii apparemment ce sont les mêmes personnes qui gèrent toujours depuis longtemps donc depuis longtemps. mais ce qu'il faut éviter encore une fois su ngeen bëggee am doole il faut que ngeen mutualiser sen force ça c'est d'un mm-hmm. mais légui damay bàyyi artisan ma ñew sur le plan politique mm-hmm. en fait dans les politiques... Mm-hmm am mouvement aussi. Mhm. donc jàppale euh, le mouvement présidentiel bi. Mhm. lan nga mën a wax ci sa rapport ak mouvement présidentiel bi. waaw non loolu li ma ci mën wax mooy wax ni euh, président Macky Sall ñun dañu am vision bu yàgg ci moom. Uh-huh. depuis ba muy ñëw 2012 dañu ànd ak moom gunge ko accompagner ko. Uh-huh. ñu gis muy def ay mu ñu gis mu nekk benn jeune boo xam uh-huh. dafa bëgg li def am gëm-gëm que gis ni mën na développer Sénégal moi tax ñu ànd ak en 2012. gunge ko mu jël pouvoir bi. 2019 ñu làbbaliwaat suñu fas yokk suñu doole. Mhm. àndaat ak moom bu falaat ko en 2012. kon yow yàgg nga ak moom. dama yàgg ak président de la république parce que dama ko yàgg accompagné man depuis 2012 accompagné naa ak accompagné naa. ak ñoom. waaw action yi bëri na parce que mën naa ni tey xëy na du ma tudd tur mais les témoins oculaires sont là. Mhm. parce que 2012 ba Macky 2012 avant ñu ñëw ci Benno bi Macky ba mu ñuy ñëw Médina man maa leen recevoir yu 11 angle 20. Zampol Diaz, c'est un témoin oculaire car mhm. autorités yi fa teew yëpp gis nañ ni mu Car on man sama kaddu lenn la parce que Zampol Diaz, Dias ba mu jëlee kaddu keroog dafa ni je vous présente un président jeune muy président Macky Sall ndokk yàlla le mu fekkee un président jeune muy Youssou Sama mais ça c'est c'est c'est beau à entendre non loolu dafa dafa moom dafa man c'est extraordinaire moom mu jël ay engagement yu bëri mais man keroog day saan kan moo jël engagement yi Jean non Jean parce que boobu moo nekkoon suñu euh, waaw suñu interlocuteur et puis pas interlocuteur mais bon, Zampol Diaz, Dias moom moo nekkoon porte parole bu Macky 2012 su ma donc moi mu parole mhm. donc je me rappelle très bien ba parole dama am wax que je defal mhm. parce que je jël parole dane président Macky Sall na dalal xelam. am na Je me ni que je tax ñu xam président Macky Sall bëgguma tudd turam. Mhm. mais que président Macky Sall bu ko jàppee ñu jàpp ko su ko pas ñu mais kan non pas l'appel mais mais mais joxoñ ko waaw mais kooku ministre la mi ngi ci gouvernement bi waaw xam nañ ko mi ngi ci gouvernement bi ah. donc kooku man doomu Médina la nekkoon ñu jàggoon di ànd man ak moom ba ma ba ma toogee dama ne man Macky Sall bu ko jàppee ñu jàpp ko pourtant mi ngi koy jàpp tey waaw moo tax boobu nag ñu jàpp Macky Sall jàpp gi mu ko jàppoon moo tax ñun 2012 ñu ànd ak Macky Sall gagné mais son sa wax am na barke waaw yàlla def na ci ba léegi mi ngi koy jàppale waaw ba léegi mi ngi koy jàppale d'ailleurs c'est le seul Médinois bu nekk ci gouvernement bi waaw loolu dëgg la donc yow sa wax am na barke de effectivement xam naa kon Seydou Gueye sa xarit la

am na yeneen ambition am na yeneen gis-gis am na ñeneen ñoo xam ne jàpp na ne ñooñu la mën a defal mu libre ànd ak ñoom. bu def loolu loolu nga kañ ko sentir. non ni ma ko sentir rek mooy ku nekk libre nga ci loolu mais man li nga xam ne rek man lool laay wax mooy tey président Macky Sall dafa fonk waa Médina xam ne tam fonk waa Médina gis nga dans le cadre ñun ñoom am loo xam ne benn commune amu ko au niveau du Sénégal ci défi quiconque na ko nit dindi Medina moy seule commune bo xamné bañu ñëwé bañu ñëwee en ñu paree les élections président Macky Sall dafa nommé 5 ministres au niveau de la Medina amul jéxital parce que fi nekk amul duñu benn. kenn rek la am xam nga amul jéxital oui Macky Sall bu folé paré day déglu. ok te Macky dafa jël responsabilité yu luur jox ko jox lan ko pour ñu dimbali wa Medina kon gars yi ñoo mënu ñii mais gars yi ñoo déllawul wa Medina li lay wara déllo xam nga dama la déllu wa Medina li ñu wara déllo est-ce que mën nga ma génneel fi man nañ ma wax ñi nga xam ñëpp juróomi ministre yi nga xam président Macky Sall nommé na au niveau de la Medina nan ma génnal yan jeunes na defal promotion pour ñu am dara ci ci gouvernement Macky Sall. amul c'est un problème c'est un problème. ñu bëgg muy ministre yi fa ak directeur yi fa nekk. Médina dépassé na loolu Médina c'est un quartier noble Médina jeunes yi fa ñu am bëgg-bëgg ñu am engagement ñu bëgg seen bopp. Mhm. Médina c'est un quartier boo xam ne booy góor ñi gën a noble ci àddina bi boo leen seetee bi Médina da ngeen fay fekk ñoom li ñu bëgg waaye Médina d'accord ci loolu xam nga ñoom lu ñu bëgg mooy ñoom dañuy nekk di liggéey di continuer di am seen teraanga saa bu nu ñëwee fekk la ngay ngénte ñu dimbali la sooy takk jabar ñu dimbali la di la may dix mille ak sarax. kon politique boobu moom Medina. boobu la ñuy boobu boo la ñuy ne àndoon nañu ñun ci mouvance présidentielle bi te nekk Medina delloowul waa Medina seen cër pas normal dañu war a defal promotion jeunesse su Médina ñu leen di dégg fi di dégg ñu nawloo leen parce que dafa bëri ay jeunes yoo xam ne dañoo am ambition am ay jeunes yoo xam ne dañoo bëgg seen bopp nangoo liggéey nangoo ñafe kon ñu mel noonu boo amee jeunesse bu mel noonu dafay rafet su le président Macky Sall joxee na poste de responsabilité nga delloo leen ko. mais man ñoom dañu partagé mais ça me mal su ma gisee tey ñëw taxaw di may ay dix mille ak cinq mille la jeunesse soxla wuñ ko bi li ñu bëgg mooy nga promouvoir len pour que tay medina fi ñuy dégg ñeneen yeneen quartier yi fi ñuy dégg yeneen ki ñu leen fay dégg mais malheureusement. c'est pas c'est pas c'est pas la. mais suma ma la dégloo dafa melni yow tu as des ambitions yu nek sa xel. Mhm. yoy nourrir mhm. taxaguloo ko. yan moy sa ambition politique présentement. waaw ambition politique yi moy comme fi ñu jëm rek ci élection locale yi. ah tu es candidat. candidat là bien sûr. mais mais il y' a quelqu'un qui ma ne cuuj day xam lekkam lekkam est-ce que yow lay waxal ko dans non wa mais xam nga bu nee cuuj dé xam day xam lekkam loolu waxu daanu sareet la rek. kon yow tu n'es pas concerné par ça man aw concerné ma loolu xam la loolu concerné man man doomu medina la comprendre nga am li ñëpp di am Médina su ma maam am titre foncier Médina comprendre nga ma juddoo Médina kon man am naa sañ-sañu taxaw laaj Médina. c'est très légitime. mais c'est légitime képp ku taxaw nag naan tuddee xam lekkam kooku yow la engagé mais man kenn mënu maa tere taxaw jël laaj sama laaj sama. cër ci Médina kon yow candidat nga à la candidature candidat la au niveau de la Médina. est-ce que gars yi xam nga ne ay mbër dëggantaan ngay. mais man daa mais attends. Médina ban mbër ma fa am. ah limal yow yaay lim. ban mbër. limal limal ban mbër. koo fa tudd mbër la. man Médina benn mbër moo fa am muy Bamba Fall ah bon kese ñeen ñi waay bàyyi ma waay buñ buñ demee ci ab bisimilah nga xam ne duñ dara seen kër yi la ñuy nekk ak seen teedewaay di coow mais buñ wàccee terrain bi xam ne ñoom ñëpp. est ce que doo pion Bamba non Bamba man ak moom xam nga lan moo ci am. Uh-huh. man démarche am am na lu ma d' accord am na lu ma d' accordul. lan nga d' accord lan nga d' accordul. waaw li ma d' accordul bari na. lan la li ma d' accord tamit bari na. ci ay doxalinam limal ma ñaaru ñett yi nga d' accord ñaar ñett yi nga. d' accord xam nga xam nga am na ci loo xam ne d' accorduma ci. li ma d' accord mooy gis naa ni vraiment ku ku wàccee boppam la parce que li ma gisoon ci Euh, ci ndeysaan sunu maam Amet ah, Dieng mhm. ma gisoon ci Aram Dieng mhm. gisoon ko ci Aline Diagne Mboor mhm. dama ko gis ci Bamba Fall à toute sincère nit même bu fekkee àndu leen waxal dëgg te yàlla tax gis naa ni ku wàccee boppam la au niveau de la Médina te am na démarche participative ak population Médina loolu dama koy saluer mais mën bokk na ci li nga xam ne man neex na ma ci démarche am mais li nga xam ne moom may énervé ci ay démarche te neexuma ci lu bari neexuma ci mooy dama gis ni moom toujours day def loo xam ne du diisoo ak waa commune bi du diisoo ak waa Médina te nax ñoom. parce que dañu naan dañu naan maire yi. maire gestion participative voilà donc donc lui il ne participe pas. c'est man loolu la gis ni côté bobu dafa def ay failles ci côté bobu mais bu dul loolu man dama gis man aw oh, généré contre lui parce que man amna luñu lié man ak mom moom dokay wax fumu toll da boo waxee waxe na la yuusu maa mom ño bokk yaay. loolu duma ko dindi parce que parce que dina fay am kuy préparer pour mu nek maire est-ce du yow kon wa mais mais non loolu loolu lañ man bamba bi bo ah, en tout cas les gens le disent né ngi préparer kenn pour mu nek maire est-ce du yow par exemple xam nga xam nga bamba baal dama lay ben affaire ah. mom wax nako fep fépp nee na man rek man la contre andul ak man ah bon mais loolu lay wax mom nee man dama ko contre effectivement man ànduma ak mom parce que man limu yor la bëgg mais c'est yaa ngi dégg c'est ambitieux wa c'est très ambitieux man dama bëgg man limu yor loolu la bëgg mais du té tamit ma wax deug xam nga deug moy lan mooy ñi fi nekk di mbéb mbébee ak coow ñu naan ay monsieur le ministre monsieur le directeur ñuy bëmb ci Médina. kon yow nga ñaar déjà. dama ni eh, xalal sa baay ñu fekk bëri na ministre la boole Bamba Fall. kon kon Bamba il est fort hein. juróomi ministre la boole ak ay directeur ak ñaari DG. maanaam la xam nga daal loolu. loolu li tax li tax 2014 dafa ma gën a neex ci victoire yi Bambaam xam nga tax mu neex ma. parce que dañuy dem 2012 ñu gagné ñu ñëw élection 2014 wala dem ci moo toog ak benn kilifa. na ko yow yaa war a nekk suñu candidat pour ñu jël affaire bi ci loxo Bamba Fall mu ne ma non stratégie bi ngay teg ni du boobu mooy gagné Bamba Fall attends je vais amener diw danaa woo diw danaa woo diw danaa diw ma ne ko ñooñu ngay woo Medina faalewuñ leen du quartier la boo xam ne ay complexé waaye parti c'était un quartier yaa ngi dégg c'est de politique hmm. bul fi woo ay bul yaakaar ni tour mooy gagné mairie bi déedéet ñun ñi gagné woon élection ñun ba peuple bii mën mu ne ma non non tu n'as rien compris bàyyil ma def li ma bëgg a def ma ne leen comme yéen loolu ngeen gëm dem leen mais li ma gën a neex dama jël sama téléphone dem seeti Bamba Fall ne ko monsieur le maire mu ne ko man soxlawu ma sa ñaar dërëm bokkuma ci conseil municipal bi dugguma defuma dara mais man naa la jàppale man selon mes moyens ak selon li ma yàlla wërsëgal pour nga gagné élection bi kon yow bokk ñuy participer mu gagné. dama ko jàppale pour mu gagné 2014. est ce moo tax mu bëgg a renvoyer la préparer pour mu nekk non non non pas ça la sax parce que man maa ngi ay weer yi weer du ñu ma Bamba xam man dëgg fu ma fekk fa la man xalal ma Bamba Fall saison bi mu toog boobu bëgg mais dama la bëgg xamal ni la ñii di coow ak mbéb mbébi nii dañuy sóob moo mën sama candidature mo légitime man kurul man mo fi jëlé Bamba Fall. kon gars yi dégg ngeen de maintenant am candidat bu bees. Mhm. et c'est un jeune. Euh, yeen ay ministre yeen DG yeen maire candidat bu bees ngi te jeune la néna mi ñëw seen mi ñëw dal sen kaw dégg ngeen ko. ban moy sa dernier message. message bi may tagon nak moy d'abord may lancer appel le nouveau ministre de l'artisanat oui.

kon donc loolu vraiment ñu ngi ci remercier le président de la république di wax ni sénégalais yëpp nañ àndandoo nekk benn jàppale président Macky Sall te ñi mu jox ay poste nag te mënuñu dem nga la ngir yàlla baal ma rek te xam ni yéene laa am pour développer mais lu ci rafet tamit ñu xam ni am nañ yéene développer lu gën a rafet li te maa leen di jox dig daje incha allah ci yeneen émission yoo xam dina gën a yaatu bu soobee yàlla merci beaucoup maa leen yàlla na leen borom gëna dëgëral ñun ñëpp nak am nañu droit jàppale leen doole leen pour Dak medina avancer kon maa ngi ñaan yàlla Dak medina bi bientôt nuñ koy defee télévision au niveau de la medina pour que askanu medina yëpp di gis ni ngeen def loolu maa ngi koy bëgg te incha allah bu ngeen tegee combat boobu kenn duma ci jiitu ci kàttanu yàlla yéen sunu mbokk internet yi yéen ñu di doon suivre ngeen suñu débat bi nu mu nekkee un débat passionnant et enrichissant ñu am un jeune et de surcroît un jeune médinois très ambitieux très très ambitieux pour dire il me dit qu'il je suis futur candidat à la candidature de la mairie de la Médina c'est normal c'est légitime parce qu'il est médinois ngeen dégg lu mu développé le secteur artisanal mu nekk secteur mu maîtriser malheureusement l'artisanal, c'est le parent pauvre pratiquement dans ce pays parce que nous ñu war a def jox ko artisanat dafa des cocktail bi ni koy waxee des donc l'État bi na gën a dans ce secteur là parce que secteur bu viable pour sunu dëkk yi ñu nekk nii ñu ngi leen di wax di leen jox rendez-vous prochainement ak ak beneen invité di leen wax nag demaat leen encore bu leen fàtte mukk dem leen sunu page Facebook ak sunu compte YouTube ngeen dugg ci ngeen abonné li ma koy waxee saa su ne na ko la su ne tàng mooy yéen ngi ci biir parce que ñun lu am solo kese la ñuy wane lu am njëriñ kese la ñuy def kuñu suivre jëriñu ku ñu déglu lay jeriñ merci c'est gentil vraiment merci beaucoup jeriñu Merci.